dégg naa sax ñu ne léegi xalifa Sall la ñu bëgg a def premier ministre <laughs> mose le premier ministre bu ma fàtte nag donc bi mu xamee ni loolu sottiwut mel na ni euh, Sonko lim na ay mbir yu bëree bëri yu fi jaar nee na ñu doon xaar poste waa ji ci ay métti yu fi jaar euh, bi ñu nag jëlee plat boobu nga xam ne waa ji bëgg na ko lool ndax gis naa photo yu bari yu wuute président Sall yor ko du tiim ceebab jën xaw ma nag dañ koo invité xaw ma avant laa lu mu doon daal mais photo yi daal bari na président Sall ci ciim ceebab jën nee na lu tax mu ciy def post ak yi fi jaar yi te kenn dégg ko ci. xam nga euh, Ousmane dafa souligner lu am importance nee na kañ nga gëj a dégg wala boog ñaata sénégalais ngay gis. Mhm. dugg seen kër ñu tiim ceeb bu baax jën yu baax. jën yu baax ca digg li ko waral mooy euh, pourtant géej gi ñun yàlla may nañu géej. Mhm. may nañu ay nappkat yu xarañ. mais nag boo jëlee li nga xam ne moo gën ci yow mhm. gën ci saw askan nga jël ko jaay bàyyi ñoo yóbbu yaaba ji mhm. te pourtant yow yaa nga cay am la la doy wala boog la la neex maanaam jën yu baax lay lekk mhm. léegi nag sénégalais yi nga xam ne ñoom géej gi ci ñoom la ne wax dëgg yàlla pour ñu jot ci sax problème la mool yaa ngi jooy mareyeur yaa ngi jooy man parfois samay waa kër dañ ma doon wax ne ndax mbuur gi nga dëkk amul jën parce que Saalum lañu dëkk ndeysaan mais foofu la gën a jafe xool loolu ngàpparu man bu samay doom bu ñu taxawee nii jël mhm. xeer sànni mu dugg ci géej gi mhm. te ngàpparu gën a ñàkk jën mhm. instant bi ñu toll xool loolu boo taxawee ci buntu kër gi xale lu mu tuuti tuuti sama buntu kër boo kii xam na ci dara bu sànnee xeer mu dugg ci biir géej gi pooru ngapparu samay doom fa la ñuy fooye te bokk na ci fi gën a ñàkk jën ci Sénégal instant bii ñu toll dañu koy jëggaani mhm. léegi nag leneen ak leneen nekk fi mhm. feebar ñàkk faju nekk fi mhm. chômeur yaa ngi ne xus boo gisee agression bi bari mm-hmm. ku ñu wàccul doo tala njaalo bu doon ko ni am na ci lu ñu jàpp dañu tal leneen ah, ku ñu wàccul doo tala njaalo ak yàgg <laughs> am na ñoo xam ne tey bu ñu amoon ci lu ñu jàpp la xëy mu dëgër <laughs> eh. wallahi ñi ngi yàkkamtee xëy daani seen doole macha allah ñuy dem di na ñu wax leneen lu fu fu laal askan wi lu yitteel askan wi askan waa ngi sëngeem uh-huh. kenn xamul fu senegal jëm j'ai l'habitude mooy wax ne Sénégal yaxu ndiggam moo damm te ku sa yaxu ndigg damm sa doxin ñaaw macha allah mënul ndeysaan mënul ndeysaan am na solo eh, jërëjëf eh, Mame Bamba mi ndeysaan eh, su kaag may signalé nee na li ci des bariwul mu mel ne ceebu jën bi ngeen di togg mu neex lool léegi nekkatul plat national mais nag léegi moom international la noo gisee wax yi Sonko say ràkkal diw la diw diw joo gis wala doomu diw doon diw ko gën di nii na dëgg la ndax li diw daj hmm. raakal daju ko hmm. ndax raakal ga lañ jël def ko diw ba mu doon diw di nii na laate hmm. nañu bàyyi complexé Uh-huh. nañu bàyyi jéggaani uh-huh. nañu bàyyi ñun suñu jëmmu bopp lépp lu baax lu war a am wala lu ñu war a lekk sax ñu jël ko importé ko à l'extérieur au nom de quoi uh-huh. nañ defaraat toogaay gëm suñu bopp xam ne Sénégal amuñ lu ko ëpp président nag moom xam nga dafa neex parfois mu laal tuuti saa njóog wala mu laal tuuti Kouthia <laughs> ah. mu koy sànni xer waaw moom bu réew mi yëngoo moom moom moom daal moom yoonam moom ginnaawam bandang moom day xalam ak riiti def ay zërigam ak ñu koy gitaaral moom namul brochette yoo xamul fuy métti moom moo welaale ni moom muy neex parce que dëgg neexul doy na waar léegi tam ma dugaale ci li Sonko wax nee na Khalifa la a def ministre <laughs> ah mun na nekk de ah. xam nga sàcc bu du raw jaru yàq nelaw mën na ne ah mën na ne ndax Sénégal dañoo mën la nekk comme Idrissa dem keneen kuñ ne ne dina dem dina dem Macky newoon na ne mburoog soow xaw ma lan góoral yaa ngi ñëw ba léegi góoral yaa bi gisaguñ ko góoral yaa bi jiñ nañ ko bëggaan siisu na justifié wu ne a doon allahu ahlan mu ngi noonu ma jigéen xam naa jomb li nga ci jàngat waaye li mu wax ni euh, Cheikh Yérim mi nga xam ne togoon na ci télévision bu mag nee na waa ji mi ngi waxtaan ak xalifa ba léegi est-ce kon ñu bari ne waxuñu ne mooy premier ministre bi <laughs> mais xalifa bu ñu fàtte incha allah waaye sooy bu waaw ba Sénégal moom dafa neex ba parfois yenn information yi soo ko déggee sax ay retaan la lay def Cheikh Yérim moom parfois day génn di wax wax yoo xamante ne nii après soo toogee quelques semaines rek da ngay gis wax ja mu waxoon dañ koy jël teggi ko teg ko ne parce que moom borom xam-xam la de borom xam-xam la kenn du ko weddil mais parfois dafay euh, dugg si yoo xamante ne ni ay yeneen gaam la juste pour euh, di réeral sénégalais yi mm-hmm. mais euh, damay wax xam naa ma ko waxee dina am mais euh, parfaitement d'accord avec son Sonko parce que président Sall moom lu si bëri il aime trop se divertir moom euh, comme lu muy wax tout à si santé bi si si si si étudiant bi gaañu ba tey déggoo ko mu àddu def na conseil des ministres waxu ci mhm. ah dem euh, di wax plat national plat ceebu jën bii nii avant ñu ko def international sax moom demal na boppam fu nekk parce que ceebu jën fépp foo dem ci àdduna bi am na sénégalais yoo xamante ne nii dañ koy togg foofu di ko fa jaay ay tubaab ñu koy lekk te ñoom ñiy jël plat ceebu jën bi tey di ko di ko di ko posté ci Facebook bi da leer ne tey suñ demoon ci restaurant yi gën a mag fii même waxuma nga génn Sénégal sax. Mhm. bu ñu demee duñ ko fa commandé. kon kooku du moom mooy toog di ñu wax li nga xamante ne nii moom la ñu nationalisé ak moom la ñu internationalisé. loolu loolu loolu du ay kàddu man daal. ànd naa ak Sonko sincèrement. mi ngi noonu jërëjëf Oustaz kon mu ngi noonu ñu waaxu rek ndax uh, masala ku jéng <coughs> xaar ak masala. <coughs> waaw ci gàttal man ànduma ak Sonko. yow ci kàddu yi ma ko déggee nii. kàddu politique la. li ma dégg Sonko wax. cadre politique waaw la rek. ceebu jën moom daa neex. ku ne am nga droit lekk ko fu mu la neexee ak dëkk bu mu la neexee. Macky Sall ma ngay lekk ceebu jën nationalisé nañ ceebu jën. loolu du débat du détail moo xam ci pouvoir. détail la kay parce que am na yeneen soxla yu fi gën a urgent te tout a waxu ko allah yow oustaz yaa ngi may dog ah maa jigéen yaa ngi may dog de ba ngay wax dogu ma la mu ko laa maanaa waay ànduma ak moom waa li ma am ak moom ni mu communiqué ni ma dégg ko communication wu politique rek la xam nga tey exemple laa la jox ba ba def na appel bu garaaw xuuma kaf la ko jëlee xawma defewu ko kaf fi mu naan xalifa nee nañu sax yow la ñuy fal yaa ngi dégg loolu calcul lu jëlo ci seen biir ndax politiciens yi pour te dire la ah, vérité amul kenn ku wóolu sa morom ay intérêt rek la ñuy àndee ay intérêt intérêt yooyu bu jeexee jàll kon ni ma déggee Sonko wax la politique la rek kàddu Macky Sall génn na am na débat bu ñu wax comme ñoom ñaar actuellement ku ne xam na ni maram ak biraan lañu foo jaar mu sànni ko xeer man noonu laa gisee macha allah su kay ça man de ah. pour man day nelaw mhm. ah. waaw sax ma ne oustaz day nelaw kon wax ji waaw je vous en prie eh, da nga ne woon ma jigéen dagg la bul ma dagg dagguma la euh, parce que dane yu am importance dafa am ci réew mi posté wu ci di posté ci ay ceebu jën waaw yaa ngi dégg ci jamono ji muy posté ceebu jën sénégalais yi lekkatuñu jën bu normal parce que jaay nañ géej hmm. lépp dafa tegu ci li nga xamante ni bi moom la ñuy wax li xew parce xale léegi ni wax la ne la mbuur gisatuñ jën nappkat yi gisatuñ jën moo tax dala bëgg a wax ne la jaay nañ géej gi loolu nappkat bi gis na ci boppam peut-être yow nappoo nappaanoo moo tax loolu mënoo ci gis sa bopp ah, ah? bi li wax noonu ci li xew ñi nga xamante ni bii tey seeni doom ñàkk nañ seen bakkan wallaay ci njàngam waxut ci loolu posté ci ci ku ñu dénk réew ngay posté ci téeméer foofu la waxee waxoo mais xam nga Sonko su ñëwoon rek wax ci loolu noonu. non la wax nga ne bu doon wax ci loolu. expliqué lan la wax leneen. man du ma APR du ma la wax lan la wax. léegi peut-être comprendre li ma dégg moo wax nii ah. li ma dégg moo wax waaw waxu politique rek la fi soog a wax. parce que kii di dem di moom mooy. saa man. baal ma dama jàpp ni li mu wax ci xalifa noonu en direct noonu ñu taxaw c'est pour tontu kum tuddut muy Cheikh Yérim mi nga xamante ne bi génn na xibaar yooyu di wane ni kii a ngi wax mu wan ko ne ko sunu ànd bi mënoo koo yàq c'est tontu la boo xamante ne bi maanaam tuddul Cheikh Yérim macha allah mais euh, takkine bi mu takkine xalifa boobu ne ko waaye bu ma fàtte maanaam lu xalifa nekk mi ngi ci te ñoo bokk ñoo bokk ne foofu wax jooju loolu lay signé ay ja mi ngi noonu da ngay nelaw euh, ala jeexal nañ tàkk-tàkk kon mu ngi noonu jaajëfal ko bu baax a baax euh, su kii suka ñu ngi jéggalu bu baax a baax ci li nga xam ni moom la ñu xaabaabal tuuti ñu joxante dig daje ba dimanche incha allah rabbi rafetati na